asalaamaaleykum mbokk yi ànd ak ñun seen émission bi ñeel lépp luy fait divers nag di xew fii ci biir réew mi ak bitim réew nuyu nañ leen bu baax a baax euh, yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci biir ci ci biir réew mi waaye itam nuyu leen yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci bitim réew mbokk yi ni ngeen koy ànd ñun saa su nekk ak kontante lay nekk. Euh, ku ne xam na ne nag fan yi actualité bi li ci gën a fës ci mbiru fait divers la moo di mbiru Abdou Aziz Dabala. waxoon naa leen barki démb am na koo xamante ni teg nañ ko loxo kooku nag eh, mi ngi wekk turu Mamadou Lamine génn koo xam ci Modou Lo moom nag am na lu nga xamante ni for nañ ko ci wewu bëy am nañ ko ci suñu ay sources ñeel nag la nga xamante ni moom moo di waxtaan bi nga xamante ni am na ko diggante moom ak ñi ko doon déglu dina ci am nag ay kàddu yu nga xamante ni duñ ci ñëw ndax nag mbiru mbiru ku génne àdduna la wax ji day rafet ndax itam ñu ngi gis ni que daal yenn saa yi suñu mbokk taskatu xabaar yi di yëkkati ay kàddu yu nga xamante ni peut-être loolu euh, war na mën a ñàkk ndax itam euh, suturaalante suñu biir waaye daal pour ngeen xam l'essentiel ak pour ngeen xam la nga xamante ni moom moo xew moo di kii di Mamadou Lamine Diaw ñu gën koo xam ci Modou Lo moom nag limu wax ba te rek moom moo di moom moo faat Abdou Aziz Dabala waaye itam moom moo faat Boubacar Gaana ñu koy woowee Waali moom nag itam waxaat na ci kanamu enquêteur yi ni kenn jàppalewu ko donte nag jamono bi juróom ñaari nit au total ñu ngi ci loxo yoon ñu leen di déglu am na ki sax ñu nga xamante ni placé nañ leen en garde à waaye nag moom limu xam ne rek moom moo di daal xoful tiitul rëccuwul la nga xamante ni loolu la def ndax nee na moom moo faat Aziz Dabala waaye itam moom moo faat kii di Wally dafa am mbir nag bu nga xamante ni moom moo dox digganteem ak Aziz Dabala loolu nag dañ koy coiffé nag duñ ci ñëw directement waaye daal dafa am ay proposition yu nga xamante ni moom nee na Aziz Dabala daf ko yàgg def jëmale ko ci moom ci benn intérêt bu nga xamante ni intérim la moom aji dem ji waaye nee na moom proposition yooyu mosu koo nangu ndax nekkul la nga xamante ni rafet na jekk na nee na nag moom loolu daf ko yàgg maanaam euh, décliné ndax Aziz yenn saay daan na ko am wax yu mu ko wax ngir ñoom ñaar xam nga rek am lu dox seen diggante waaye moom daal li mu xamal enquêteurs yi moom moo di loole daal moom mësu koo nangu mësu koo bëgg moom maçon bi di Modou Lo nee na sax am na bis bu nga xamante ni moom Aziz Dabala daf ko proposé ko xaalis waaye jëlu ko ndax jàpp daal proposition boobu moom ak ni mu mel ak fa mu bokk ngoram mayu ko mu ci maanaam mu ci intervenir waaye nag nee na mu toog fan yii nga xamante ni daal ci la mbir mi am waajuram bu jigéen daal di feebar mu daal di waxtaan ak Aziz Dabala ni ko kat dama soxla xaalis dama soxla cinquante mille francs nee na sax moom Aziz mi dem moo ko daal di yónnee frais de transport am ngir mu ñëw ci appartement am ba tey de suñu sut ñooy wax ñu leen di nettali nee na nag ba nga xamante ni nag moom ñëw na Aziz répété waat encore proposition yi nga xamante ni yooyu la ko doon toppee moom nag nee na mu daal di mer ci loolee ndax bëggul loolu mu daal di génne paaka ndax nee sax balaa boobu dafa ne Aziz danga may jox ba pare ma soo ko def la nga xamante ne loolu nga wax waaye nee na maanaam Aziz daal di bañ mu ñaan ko xaalis nag profité foofu ñaan ko xaalis waaye itam nag Aziz daal di bañ na ko duma la may ñu ne nag moom ci la génnee paaka daal di mer ginnaaw sax la nga xamante ni daal Aziz wax na ko ko te neexu ko mu daal di génne paaka menacé Aziz nee na nag moom ci la ko daal di faatee nee na bi mu faatee Aziz ba pare nag daal di def li muy def daal koy sàng ak yooyu ba pare moom ci la demee ca beneen maanaam néeg bu nga xamante ni mu ngi ci appartement wu bi nga xamante ni fa la ñoom ñaar ñëpp nee na foofee nag la kii di waali nekkoon ci benn néeg daal di takk ay écouteuram waaye itam sax mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci waali am lum ko wax pare nag soog koo jàmpaaka loolu ba tey rek moom daal for nañ ci ay woyu béy ka nga xamante ni daal moom lañ jàpp ni moo faat Aziz loolu la yëkkati nee na bi muy faat ki nga xamante ni moom moo di waali daal takkoon na ay casque di déglu musique am nee na nag loolu moo tax ba nga xamante ni daal mbir mi am na mu daldi dem ci benn jege ñaaleem expliqué ko da nga xamante ni noonu la bi demee te sax moom itam wax na ni moom moo yóbbu téléphone yi ba sax am na ci benn téléphone bu nga xamante ni daal daf ko dal di jaay soixante quinze mille francs foofee ne ca marché Ocass waaw marché Ocass la ko dal di jaayee am na ci nag benn téléphone bu nga xamante ni nag moom nee na ci ab kanaal la ko sànni waaw ci ab kanaal la sànni téléphone boobu wala am na ci benn téléphone bu nga xamante ni daal marché Ocass fi naan réseau ba foofee la ko daal di jaayee soixante quinze mille francs waaw moom nag nee na ba nga xamante ni daal mbir mi am na ci la daal di waxtaanee ak benn jege ñaare mu ne ko kat damaa daal di faat nit su ma soñoon kon ñu daal di génnandoo dem màggal. nee na noonu nag la demee màggal waaye ba tey nag moom dafa am ko nga xamante ni daf ko boole ndax moom mi nga xamante ni jàpp nañu moom moo faat dafa am benn jege ñaaleem bu ko jege loolu la expliquer mbir mi tiit nag expliquer ko ko ne kat yaa ngi dégg sàngam ak sàngam mu ne ko effectivement dégg naa ko mu ne ko man maa leen rey kooku nag mu ko daal di wax kooku itam daal di tiit ragal ni ëllëg ci biir wala bu toogee itam moom ki nga xamante ni moo faat Aziz Dabala mën na koo rey moom nag ki la daal di tiit dem ke gendarmerie wax leen ko mu ne leen kat carrément sama kër am na ko fa nekk koo xamante ni sama deret la daf ma jege lool daf ma wax ni que ñaar ñi ñuy dégg fa yi dañu leen a faat Sénégal rawatina foofee nekk diwaanu pikin moom moo leen daal di faat man nag bañ après mu xam ni que yëg naa li xew bala mu ma cee boole nag ngir rey ma il faut que ma wax leen ko. kon noonu la takk der daal di ñëwee foofee ca ca janatu daal di jàpp moom maçon bi waaye itam bu ñu ñëwaatee foofee ne nga xamante ni fa mbir mi am fekk nañ fa ay mbir yu nga xamante ni daal peut-être euh, maanaam depowul ak suñuy maanaam sart euh, depowul ak suñuy aada ak suñu cosaan moo di daal am na yu ñu fa fekk yoo xamante ni daal dañ koy jëfandikoo te yoon daf koo tere ci appartement boobu loolu nag soit moom mi nga xamante ni moom faat moo ko fa bàyyi wala itam soit ca ña nga xamante ni ñoom la doon jëm si ñooñ ñoo ko moom waaye daal lu ci mënti am itam ay source ñoo ngi ñuy xamal ni que fekk nañu foofu ay daal mbir yu nga xamante ni yoon dafay tere ñu yaa di koy jëfandikoo ba tey ci mbiru Abdou Aziz Dabala ni ñeen faatee xam nga moom maçon bi nee na moom mooleen leen maanaam faat ñoom ñaar ñëpp kenn jàppalewu ko waaye nag taxul ni ka am na ñoo xamante ni dañoo jàpp ni ko ñooñu bokk nañu ci ñu mujjee gis Aziz Dabala wala bokk nañu itam ci ñu mujjee teeg ñoom loolu nag moo waral yu mel nii bu amee il faut que yoon woo leen déglu leen il faut que yoon woo leen waxtaan ak ñoom te sax itam pour préciser ñu ngi doon wax ni que am na xaalis bu nga xamante ni dañ ko retiré woon ci compte Wave beeg am na ko soloon casquette bi ku siiw koo xamante ni fan yi yëpp ñu ngi koy wone ci réseaux sociaux yi ne dañ ko jàpp loole nag amul loolu moom amul benn yoon xam naa sax du ñàkk balaa suñu maanaam mbir mi di jeex ñu tegal leen ay kàddoom mu wax ngeen dégg waaye daal moom mi nga xamante ni tam moom moo faat daal di nay lànk weddi ni daa dinay retiré xaalis ca compte Wave loolu itam il faut que mu leer ndax bi mbir mi amee ñu doon naan yàggul dara vingt huit minutes après ah am na xaalis bu ñu retiré waaye daal moom mi nga xamante ni moo faat daal dinay avoué ni que du benn dërëm bu nga xamante ni moom na daal di retiré ci compte bi waaye mbokk yi xam ngeen lu ci garaaw mooy daal ki ñi naan Demba moom daal depuis démb ba léegi ñu ngi doon ruumadaat ni daa bokk ci dil beeg ndax nee nañ sax amoon na ay taskatu xabaar yoo xamante ni talaloon nañ ko micro mu ax ba ñu bëri naan bu dee lool la man bàyyi naa mbokk affaire de sénégalais la xam nga nit dale naan dalaa bëgg moom nag daal na ki tontu moom Demba xam naa dañ leen di mosal tuuti ca kàddu yu nga xamante ni yëkkati na ko ngir ñu continuer suñu euh, maanaam émission bi ngeen xam naka la mbiri demee mbokk yi ñu teelu kàddu Demba tuuti. nga jàpp ko di ko yàq ci internet bi naan jàpp nañ ko ana Demba fekkoo ko fii. fekk nga ko fi wala fekkoo ko fi gis nga ko wala gisoo ko lan moo tax nit ñi di yàq deram. gis nañ si ay site. pour dem fi yoon nekkee benn loolu la ñu wax ba lu ñu yoon may ñu jël dégg nga wax ci ci groupe whatsapp laa dugg wax ko parce que dama am lu ma naqari ndax dañ ma dañ ma dañ ma dañ ma dañu wax ni Demba jàpp nañ ko ma ne loolu mënul nekk Demba jàpp nañ ko. ñu wër demba ba gis demba bi ma gisee demba ma am mbetteel ne ko yow dañ laa jàpp imaginer nga gis nit naan ko dañ laa jàpp mu ne ma paate police woowu ma sama yoon nekkul ci lii ma gëm ko parce que gëm bi ma gëm mooy demba mosuma gis mu xeex fii ci koñ bi demba kenn dula la seedeel ne xeexkat la kenn du ci laa dugg ci groupe jeune reporter ne leen arrêté leen li ngeen di def sit bu mel ni Dakar instant naka la tudd tudd jëlal micro bi mooy ku jigéen ki mais nan ngay nekkee doomu ginnaaw raay di joxe fausse information suñu justice dafa war a taxaw ci loolu mu jeex une bonne fois pour de telle sorte que képp koo xamante ni maanaam meurtre bu amati fii nii Sénégal kenn dootu ci wax ndax yow laaj nga ko mu xamal na ne rëccu ko wala demba wala gisoo demba demb bi crime bi amee ba tey wala demb bi mu bi mu bi mu bi mu génnee def sorti ba tey kenn convoqué wu ko police mu ngi fii këram mu ngi fii ginnaaw raay ma wax la leen démb awaskiti bi mu génnee def sorti ne démb jàpp nañ ko mu ndeke moo bokk ci loolu ñu jàpp loolu loolu crime bi gis nga xam ne fii seen kër am na koo xamante ni dafa fat hôpital lañ ko mujjee dimbale da doon dee koñ bi dafa feesoon dell ak ay nit yonent yàlla Muhammad koñ bi dafa fees dell ak ay nit nit des fois am na koy toll xoolal sa diggante ji yàlla di wax li am. ay ca mbokk yi euh, dégg ngeen la nga xamante ne am nañ ko euh, sànq nag ñu ngi leen doon wax ne que Demba mais finalement magam sax moom moo def réaction boobee ne. Eh, waaye daal lu ci mënti am daal kookee nga xamante ni moom mooy Demba soloon ab casquette ba ñu bëree bëri gis li nga xamante ni rek moom moo di réaction demoon sax ba naan wàllum defaral ak yooyu ñoo ngi nag ci kàddu yooyu la sukkandikoon sax ba daal di jàpp ni que nag kookee di Demba eh, dafa maanaam takk ci mbir mi waaye nag lu ci mënti am itam gis ngeen la nga xamante ni loolu laay mbokkam wax effectivement ndax nag dañoo toll ci situation boo xamante ni il faut que il faut que ñu bàyyi ci xel ñuy joxe information bëri na mais tamit yàlla suñu borom dafa ni eh, in jaakum fasiqu bi naba'in fatabayyanu gis nga bu kàccoor andi ci yéen ab maanaam xibaar bu leen ko gëm waaw mais nag il faut itam ngeen remettre ci en question waaw eh, xam nga rek yaa ma gën a xam la benn eh, borom xam-xam waxoon naan courage se comporter à l'égard du monde comme si rien ne l'était soi xam nga yenn saa itam benn woykat nee na du bul dégg rek daal di gëm kon nit da nga war a toll fa nga xamante ni daal la lay def nit da nga nite moo di bul dégg dara nga gëm ko mais lu waaye def rek il faut nga dem gëstu ci xool ba xam ndax tey jii euh, nooneen lu ñu ko waxee demba itam am na ci yeneen victime yu nga xamante ni am na ndax itam xale bu góor bi itam moom ma ngi wuyoo ki turu euh, Mamadou Lamine moom itam sax xam naa daañu leen dégtal tuuti ci ay kàddoom ngeen déglu ndax moom euh, dafa dafa tudd moo Lamine Diawo dem itam ñu daal di ñu daal di euh, publier lii di photom ci internet bi jàpp ni moom itam moom moo moom moo daal di daal dina daal ñu ne moom moo rey ki nga xamante ni moom moo di Aziz Dabala moom nag itam daal dinay àddu ndax itam tey jii jël photo nit ngeen dégg teel rek ngeen di dem na tax ngeen jël photo nit daal publier loolu itam dafa xaw a ñaaw ëmp ci Sénégal ni mu mel kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kii nga xamante itam daal moom loolu moo ko daal ba ñu daal di publier photom daal dina ci wax ñu déglu itam moom ay kàddoom ci rëcc yi nga xamante ni daal def nañ ko ko bañ koy wooy un partout dans le monde. effectivement waaw comme vous allez toujours dire rek maanaam affaire bi euh, ñun kaw la ñu dikkee tout le monde ici dans la famille. parce que ñun ñoo ngi toog le matin man maa njëkk a génn nekk si biti ndekki vers 11h yor sama téléphone ma gis euh, Seneweb dugal bi Seneweb dugalee ñu ne euh, bon meurtrier wu Aziz Dabala bi arrêté nañ ko ah précisément bon mu ngi jannatu mi ngi Touba commissariat bu jannatu bon automatiquement ma dugg si kër gi parce que sama ñoom maam fan yëpp nelawul ñu ngi si kaar ma xëy maay taal télé bi YouTube maire di seetaan yu xool waa kaay fu mu toll nga ñu xool avancé enquête bi bon bi ma ñëwee ma gis leen ne leen waa ji de arrêté nañ ko mais ma xaw a ree ne na ñoo bokk tur boo sant moom la leen jaawalu tudd mais moom ñu ngi koy woowee te maçon la heureusement te ba pare ginnaaw raay en plus xaritu Aziz la ci liñ bind information ñu bon noonu laa si noonu mel ba gars yi di ree de doo bokk tur parce que boobu xamuñu affaire fu muy àgg après loolu démb vers euh, quatorze heures bi ma nekkee ba teg si bi après ma ñëw fii vers quatorze heures bon bi añee quinze Mama Diaw c'est de comico ne ma moo gis nga photo ma ne sama photo man ma sa photo mooy ko TikTok ne ko faa man waaye nekk ci bëri sur Facebook mu ma sa photo moo nekk may ma yaakaar daf may mbala ma faa ma reetaan mu ma billaay reet sa waat ah. bon sama beneen frère moom rakam kapi envoyé ma capture bi mooy passe bi ko def ok bon ma xool gis ne man la ñu posté photo boo xam ni ça date trois ans même parce que benn tabaski la woon na ne l'ai plus yoratuma ko bon ma ma war ma du abi envoyé ma lien ku ko def muy galas 775 xaw ma ma dugg si page galas boobu bon j'ai euh, le poste ma commandé wa ko ne ko bro yow sama photo nga dugal kay ñu ngi arrêté nañ ko mi ngi commissariat bu jannatu lañ wax xaw ma doa je pense jannatu man maa suñu kër plan jaxaay toog naka man dina fa après tabaski cest à man gën naa zone boobu ay caaro yi Pikine genre et tout liggéey laay def sama cabinet d'avocat bu sama tonton fa laay xëy en tant que clerc te géejawaay la nekk géejawaay la nekk man doo gëj naa Pikine Thiaroye Guinaw Rail et baax ba wax waa ne ko nag dinaa porter plainte bon après ñeneen ñu dugg ne waa ji vidéo bi ñi suñu waa kër am gars yi donc <clears throat> est-ce que def vidéo leeral ay leen non maître ne leen jëleen seen temps parce que maître woote woon na cybercriminalité gars yi ne ko donc lundi dinañoo def plainte et ñu xaar léegi nag affaire bi nekk àdduna ci aadamu vers 17 heures 18 heures sama même ne ma mooy saa yi àll moom def live ma ne ko live ma waaye ma ko ah bon ma dugg bi may dugg noonu parce que dama may xar yi xar également ñu lekk bi may may xar bay dugg gis ne Adamo live am jeex na il y a quinze minutes xaw ma sept minutes côté bon mais teewul foofu vidéo mi ngi fa woon bi ma xoolee je vu que ñuy wax dugal sama image ma parle ne ko man Fall yow nga dugal sama photo nii ma gis yenn gars yi sax di commenter naan naan massa ñii dañuy ñëw dugal leen o am lu leen leer quoi di wax après nag mu supprimer ko. heureusement. Adamo heureusement jot nañ ko fii téléphone fii si salle bi maître am na ko mu woo kooku woo Adamo ñu def fii appel whatsapp ñun ñett si salle bi bon wax ko man ko sama photo nga dugal sànq donc ma bëgg ni nga dugalee sama photo wax ni cest à dañuy wax mu waree Aziz nga defaat la même chose dugalaat même photo bi waxaat ne loolu intox la du dëgg fake news la. kon dégg ngeen lii itam nga xamante ni kii moom victime la kon daal ku nekk a ngi wax ku nekk a ngi andi ay. maanaam information ndax dañuy naan ñoom instant moom ñëpp ay journaliste lañ ñëpp ay enquêteur lañ ku nekk dina fexe daal ba génnee la nga xamante ni moom la moom maanaam moom la yaakaar ne bu ko génnee dina ci siiw waaye nag il faut ñu xam ni que mbiru bakkan la tey itam mbiru faat bakkan la tey gii am na loo xamante ni sax même bu dee dëgg la euh, amuñu droit def ko ngi respecter doomu aadama ndax nag nit koo xamante ni euh, même bu dee sax moo ko def danga nga gis yéen yenn saa yi dañuy bëgg ñuy nëbb la nga xamante ni moom moo di euh, seen seen kanam ndax loolu moo gën a yenn maanaa loolu moo gën a baax que nit même bu faatee sax dañ ko war a maanaam suturaal waxuma la koo xamante ni def ko kon nag mbokk yi fii la kaa bi toll gis ñeen la nga xamante ni daal faram-fàccee nañ leen ko ci ki rey Aziz li mu wax wala ak tafurlaay ki ñu jàpp ni moo rey Aziz li mu wax yenn kat yu nag bëgguñ cee àgg waaye itam nag dañuy wax rek la nga xamante ni daal jot nañ ko. nu ma gën a rafetee ndax itam dañuy dañuy dañuy respecté ka nga xamante ni moom moo dem ndax nit la comme ñun muy man muy moom muy keneen ak keneen ñëpp ay dem kon nag na rafet det waaw li li li yonent bi waxoon naan uskuru mahaasina mawtaakum nit bu génnee àddina gaay yi nañuy wax ci moom lu rafet moo gën ko nekk di wax la nga xamante ni daal ëllëg ci biir diñ ko lay moom ndax itam nag informé fii layema ah, waaw àggul fële waaye nak nay rafet gis nañ ci ay nit yu nga xamante ni daal ñu ngi ciy utiliser ay kàddu yoo xamante ni eh, maara day taali te loolu nag ëllëg ci biir dinañ ko layo ak seen borom kon mbokk yi daal lu ci mënti am lii yàlla na fi gëj waaye itam nag kilifa ya nga xamante ni ñoom lañu dénk réew mi nañu bàyyi xel bu baax a baax sécurité askan wi gën ko renforcer waaye itam gën a xoolaat yoonu Sénégal ni muy doxee ba képp koo xamante ni daal faat nga bakkan ñu faat la jàmm ne ne ñooy wala itam même bu ñu la faat tamit ñu tëj la sa giir dund bu ko defee yow dootoo ginnati as maanaam euh, lii di société bi itam dootu la soxla ba ngay jaar fenn naan dangay ngay faat di dem déet kon mbokk yi bëgg nañ loolu lii la ret bëgg nañ lool ci commentaire yi gis nañ ñi ngeen euh, fonkee seen émission bi gis nañ ñi ngeen koy partagé ñu ngi koy bëgg bu baax a baax li moo nekkoon tey ponk bi nga xam te ne andi nañ leen ko ànd koog seen mbokk Thierno Abou Bakarane ak toute l'équipe de Thiès Info jërë ngeen jëf mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah